ànd ak moom. dañuy d'accord ci benn mbir. waaw Sall en tant que président de la République. Mhm. bu ñuy wax gestion bi. bu ñu nee baax naam baaxul c'est le premier responsable. mais mbiru gouvernance gouvernement c'est une responsabilité collégiale et solidaire. Oui. c'est-à-dire euh, Amadou Ba mënul nekk ministre des finances nekk ministre des affaires étrangères nekk l'avant-dernier premier ministre de Macky Sall. Mhm. boo décidé ne nga ne Macky Sall ak njabootam ñoo bu dee ki da nga jàpp ne Macky Sall ak njabootam ñoo yàq réew mi. Mm-hmm. ci njabootu Macky Sall boobu Amadou Ba ci la bokk. Cheikh Omar ci la bokk Victorine Ndeye ci la bokk Zahra Iyane Thiam ci la bokk Sori Kaba euh, xaw ma sax ndax investir nañ ko euh, ci la bokk aliw sàll ci njaboot boobu la bokk donc yow décidé nga ànd ak une partie de njaboot Macky Sall bi nga jàpp ne ñoom dañoo. indi réew mi jafe-jafe. xam nga boo waxee loolu man dama du comprendre lan ko bëgg wax dëgg-dëgg. mënoo leen seppi. parce que dama mënoo seppi seen loxo. xam nga coalition ci gestion wu Macky Sall xam nga man dama toog xeex Macky Sall fukki at ak ñaar ba dugg ci kaso. taxaw assemblée mboolem ñoo ñu ngay lim ay Omar Anne ñoom ak ñoom ministre yooyu yëpp ku mas a ñoom assemblée te lan la dénk te lan ko yor jaaruwul yoon ma taxaw ne li nga ko yor jaaruwul yoon. défendre position bi ma nekk en tant que opposition ba yàlla dogal Macky Sall jóge fi Amadou Ba mi nga xamante ni si njabootu Macky Sall nga woon ci la bokkoon man ma gis nii bu fekkonte ni tey jii dafa continuer di des si njabootu Macky Sall comme ni nga ko tuddee ci Abdou mbaw moomu kenn du ma gis wetam parce que bi ma PDS contacté ni pour maanaam ma waxtaan ak ñoom Karim yónnee fi si man dama xam ne dañu. ah Karim yónnee na ci yow ci élection yi ci élection yi. dama xam ne dañuy coalition Macky Sall dama ko refusé parce que bañ a ànd ak Macky Sall moo tax ànduma ak PDS te Amadou Ba mii man bokk naa si li tax nanguta ànd ak Macky Sall ci co inter coalition. parce que nee naa ko ah, boo ko defee ma bàyyi. yow yow bokk na ci li tax. waaw Amadou Ba nangul ànd ak Macky bokk na si kay waaw. parce que maa ko boo defee moom ma ba parce que man mënu ma euh, xas Macky Sall ci jëf yu ñaaw ñu rey fi quatre-vingts personnes tëj fi ay ay deux mille détenus politiques parce que 86 personnes faatu fi ñu caxa-caxate àllu réew ak suufu réew mi ma wax ko fukki atak ñaar ba dugg si kaso li ma gën a naqar si àddina mu teg ma ko ba mag bindal ko livre rouge boo xamante ni léegi mu pare may wañu ko di àndaat ak moom di ko campagnal est loolu yenn na maanaa dari at mi jër lu ma loolu sama ngor mayu ma ko moo tax bi ñu toogee ci saalam mën na ko yaa ngi bëgg a def intercoalition mais bu ànd mag Macky Sall ma bala gis man amul kenn ko yàlla bind ko fukk san barke de Sëñ Tuubaa